ñëpp tey mën naa limal benn affaire tey euh, je donne un exemple. Euh, man de ma répété ak question bi damay ñëw li nga wax Victor. Falaay ñëw ci yow Victor Victor waa PDS waa PDS bi ñuy xeexal Victor. ñun ñëpp fa fa la ñuy Victor ñu libéré ko. mais ñun man je suis libéral parce que Victor à l'université dañ ko jiiñoon ni ñoom ñoo doon. sànni xeer président Macky Sall moo ko jiiñoon mais problème bi mooy. comment ça nañ dégloonte nañ dégloonte Victor. man ah, man non j'ai jamais eu l'occasion j'ai jamais eu l'occasion. c'est pas le thème du débat bi mën naa la ci wax tuuti rek mais mën naa la ci wax tuuti xam nga lu waral loolu ñun quand on faisait la politique on dama leen di génne émission bi ñaar de politique dafa am ay responsable man Victor su ma ñëwee déposé par mars ñu ne ma tu es l'initiateur

jëflante dootuñu waxante ci politique c'est pas ça la politique ñoom dañ dugg si politique politique dafa am art am école ñun dañ ci nekk depuis élève étudiant am si jaar ci xam li nga xamante réew mi le devenir du pays am na fu muy toll day weesu ci yow ay détails ay Massamba ay Mademba. Ah, kon politique dafa am benn ñu koy defee maanaam comme normal comme man man euh, je suis un jeune libéral nga xamante man idéologie libérale laa xam ci politique. vous avez loolu laa xam tey suba on libéral bu fi ñëwoon aussi je trouvais le pas la difficulté pour l'accompagner. Hmm. par contre man même si Sonko arrivé au pouvoir man ñi ma xam ñëpp. non Sonko Sonko il est en prison nañ ko teg rek exemple rek man je suis libéral. je crois à la doctrine libérale à l'idéologie libérale muy Macky Sall ak muy Karim Wade ak muy Idrissa Seck ak muy Abdoulaye Wade c'est la même famille on a tous été ensemble dans la même école nous sommes la même famille. et je pense que on est majorité dans ce pays et je pense que. avec ce li ma gis ci réew mi man jàpp naa ne les libéraux ont construit ce pays là.